di njiitu réew mi Macky Sall mi nga xam ne moo doon ab patron te tey mu doon patron ki nga xam ne mooy Samuel Sarr ñu ngi fàttali it ne Samuel Sarr moo doon ci waneeg mbégteem keroog bi nga xam ne jëlee nañu Aminata Touré ci bopp primature loolu nag mel ne seenub diggante naqari na lool yegg ba tey ay kàddu yu ñagas ñu koy joxarbante waaye sénégalais yi moom amuñu lenn luñ ci mën a jëlee dudul rekk seen i jafe-jafe tey jii la gën a bari Pape Matar mel na ni ñuy défendre président Macky Sall moom mën nañ ne armée mu ngi gën di yaatu. waaw armée mi ngi gën yaatu mais lu ma si jaaxal yaakaar naa ci kaso bi fële dafa am benn jinne boo xamante ne boo fa demee day soppi sa xel. parce que Samuel Sarr mii tey jii moo tax woon di défendre président moo tax woon di ba ñu tëj ko ci offense au lii tere Mimi Touré moom loolu la doon def mais léegi tey jii moom mooy taxaw di xalab Mimi Touré di défendre président Macky Sall. cest sax comprendre da naan mii ñii la mooy seen bërki dem yow yaa tax woon di xas président de la ba ñu la offense au chef de l'état tëj la ci kaso bi ndel sa bopp bi ndel bu set wecc yow tey ji yaay wëlbatiku dinaan da ngay défendre président Macky Sall yaay wëlbatiku dinaan ku wax dara président Macky Sall yaay taxaw di ko tontu cest à am na yoo xamante ne homme taa du ko def te Samuel Sarr homme d'état la am na fu mu toll ci réew mi waroon na mën a dépasser yenn débat yi te mën a jàll ci li nga xamante mooy priorité sénégalais